amoon concert benn soirée bu moo gét waroon na tëgg mhm. invité woon ci artiste bi nga xam ne moo nekk Viviane finalement ñuy gis coow li ay vidéo ay synap genre maintenant problème am Viviane mujjee gedd dem soir boobu yaa ngi fi woon man nga ñu rappeler mbir boobu nan la demee woon ak lu ci xewoon waaw euh, histoire defe naa histoire yi fi am yëpp ci actualité ci réew mi fii hmm. moo xam muy politique hmm. li may wax ku ko wedd boo laajee Malick Gakou xàmmee na ma bu ma xoolee dina xàmmee dina ne booy bi xàmmee naa ko. Malick Gakou jaar na fi. mais man mais man soirée laa la laaj. Ah, dégg non non non non non ah, non dama lay wax. ok pour nga xam ni histoire yi fi jaar yëpp man xam naa ko. Mm. boo laajee ku mel ne Pape Diop maire da Dakar am na fu ñu jaar. ah bon. yeah euh, ci lu demee nan. non loolu après dinañ ci dikk. d'accord boo laajee ku mel ne Sonko. sunko Ousmane Sonko Ousmane Sonko. Mhm. moom 2020 bi mu fi am na fu ñu jaar. Ah waaw li may wax waa Pastef yi nekk New York xam nañ ko. mais tey bu ma ba ma laajee ci histoire bu Viviane bi. Mhm. Euh, li ma ci détaillé rek euh, moom mooy que ni man fekkee naa ko euh, li ma fekkee te mu am mooy que ni Viviane deful dara doomam bu ñuy wax Zeyna moom moo moom moo créé coow li lépp mhm. moo indi histoire bi. Mhm. Viviane moo waroon tëgg soirée bi. mais doomam moo indi problème bi. doomam ci naka la indee problème bi. parce que doomam moo moo doon indi complication sama yaay du dal fii du toog di fii du toog fii kenn du ko def nii genre yooyu noonu. yéen xanaa da ngeen na doon teg yeneen conditions yi neexul yaay. non pas teg condition. dañ ko bëggoon dalal ci benn hôtel mu ne foofu du ci benn appartement mu ne foofu fa dal ci hôtel lay dal. genre yooyu noonu indi complication. waaw a dem non mais mais mais loolu dëgg la mais loolu kenn bañu lukk ko. mais amaat na yeneen détails yom te ni doo ko wax ci kaw. Mhm. lom te ni doom ji moom moo ci nekkoon di kii te loolu jërul coow. ok Viviane la dafay way teraangam mi ngi ci biir way. Mhm. mën nañu comprendre ni. Mhm. Zeyna moom mooy doomu Viviane en même temps nekk kii wam nu mu tuddati sax euh, manager am. bu boobaa bu waxee dinañ ko comprendre mais yow doom nga doo manager. kon waroo ménager sa sa yaay di ko wax naa ko yaay def lii wala doo def lii wala nangam ngay def wala nangam ak sàngam Viviane man li ma koy conseiller ci loolu kese avant ñuy jàll. Mhm. mooy que ni moom na xool bu baax a baax carrière am te doomam mu génnee ko si bu fekkee ne da koy def manager mu def ko manager mu ànd ak moom liggéey bu fekkee ne defu ko manager na ko génnee ci carrière parce que carrière am la. Mhm. ah est-ce que amul condition yi ngeen bëggoon a teg yaayam moom en tant que doomam dëkk ci dëkk bi. xam bu baax dëkk bi ni muy doxee aussi bañ ngeen lalal yaayam dëgg sërëx ainsi de suite. non taxoon mu tax muy défendre yaayam. programme boobu programme boobu amul dëgg sërëx xamul lu tax. Uh-huh. programme boobu ñoom qualité fulla ak fayda ñoo fa ñëwoon. Uh-huh. li saaneex. saaneex sàmb. waay bu ma seetaanee di dina dina xam bu baax li may wax. Uh-huh. Euh, ak ak ak Cheikhouna ak Zozo ñoom ñëpp ñi nga woon. ñi woon ci programme boobu noonu. mais problème bi am. pour wax ji bañ a gudd parce que mënuma détailler li nekk foofu yëpp mhm. mooy que ni Zeyna moo juum mais Viviane nit ku baax la juumut te moom xam naa ni nit ku baax la mais bëgg doom moo tax mu topp li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëgg doomam mhm. mais erreur yooyu rek laa bëgg moom mu dindi ko mhm. parce que mu ngi ci carrière la moom moo ko moom kon daal soirée bi su amul Uh-huh. Euh, Zeynab moo tax. waaw moom moo indi problème bi yëpp. moo problème après après suite problème bi. après suite problème bi euh, moo def yëfu daa moo géet daal di jël euh, cachet bu mu ko waroon fay wayut tëggut wayut. ok xam <laughs> vi vi tëggut wayut. ok mais cachet bi mu waroon tëggee way fay nañ ko ko. maam contrat bi rempli fay nañ ko ko ba daggal ko billet d' avion. ok bi ñu ko daggalee billet d' avion après mu gi demul woon noonu sax dafa ñëw New York fii am yu mu lijjanti business boppam dellu koy dem. parce que yaa ma gën a xam mu ngi noonu détail boobu du ma si dugg. Ah. mais li ma ci mën a wax daal mooy que ni erreur la you know euh, na xool na xool euh, carrière am. Mhm. génn na si génnee doomam bu fekkee nag manager la ko bëgg def na ko def manager. ñu liggéey ci coow boobu ba tey même soirée ah amoon na ci yeneen coow lu fi amaat ay sàcci or ci diggante Amina ak Tange Tandian problème. waaw parce que seen événement yi dafa bari. <laughs> bi dafa bari woon ay coow yi ci am. waaw euh, léegi léegi ci coow loolu itam. Mhm. li ci am mooy que ni euh, problème la ci diggante Amina ak Tange Tandian. Mhm. maa ngi koy en passage sama sama waajooju mais ñoom seen problème boobu ñoom ñaar ñoo nekkoon si seen si biir néeg bi ak ñeneen. Mhm. léegi fi euh, Amina nee na dafa dem sangu ji ñëw na fekku fi ooram. xool na ñu nekk ci néeg bi ñëpp. tange la jàpp ni moo jël oram. Mhm. soow mu jiiñ ko ko. Mhm. ñoom ñaar ñu nekk si di xuloo loolu lañ jotee. waaw yow li nga leeralee Viviane bi mën nga ko leeralee bu kii ni nga joxee tort que Viviane amul problème. mais mhm. Zeyna moo amoon problème est est est yaa nga fa woon. c' est que fa woon waaye néew moon ci néeg ba. ok xam nga maa ngi fa woon. kon bële bi bi am ba Sankara di Sinap yaa ngi woon ci euh, euh, salon bi. Amina bi. Uh, bi non non coow Viviane ak Moget. ya boobu maa ngi boobu yaa ngi ci woon. lan moo waraloon coow boobu Sankara Mbaye ak uh, Zeynab am ay kàddu yu ñu doon. waxante waaw Zeynab du Sankara Mbaye kese la fa waxal am na ñeneen ñu fa nekkoon ñu mu doon ñu ñu mu doon waxal. waaw parce que da ngeen a filmé yaayam da ko doon sinap quoi ci ay. waaw loolu non loolu moom ak Sankara la parce que Sankara itam. ah ok euh, loolu beneen Sankara maa ngi nuyu en passage. mais xam nga mot nañu ndeysaan sama waa ji. Ah. <laughs> mbay galak yaat ma dafa bëgg vidéo mm, <laughs> sama mbokk la quoi. so moom sinap dina ci xuloo ku nekk. Ah. mais tamit dafa bëgg lu neex rek. Mm. moo tax mu di ko def peut-être euh, Viviane artiste la bu nekkoon artiste Sankara du am audace su di vidéo di ko vidéo. Mm. di ko sinap loolu kese la. Mm-hmm. so kon ba tey yaa ngi confirmer erreur bi ma lay wax ni mhm. Zeyna moom mooy indi erreur. déet confirmer ma erreur Zeyna de. non non non mais mais si sa question si sa question. waaw dama la laaj ne la. gis naa benn vidéo bu doon circuler. waa que euh, euh, taxaw ne ko bul ma filmer. loolu dama ko seetaan moo tax ma posé la question. waaw moo tax ma ne la. Mhm. Euh, sa question bi mi ngi confirmer li ma parce que boo jé jëy naa ci boppam. waaw mais man confirmer ma ko question beeg. non yow doo confirmer. ok <laughs> yow yow journaliste ka nekk. ok <laughs> soo doo mën a léegi ñu avancé ci coow bi amoon après Las Vegas mooy affaire euh, yaa sàcc sama or. waaw sàcc sama or fii laa ko tegoon ay wotante téléphone. tudd ci benn mbër guy gi ne waaw doon na def sax médiation pour ñu lijjanti affaire yi. ñoom moo géet dañ ne woon nañ bàyyi mu sedd ñoom danañ ak ñoom Babacar diaspora danañ fay affaire yi coow loolu après. Euh, kan moo ci tudd guy gi. oui parce que xam nga man damay jot ay source parce que guy gi jot na jër ci li ma dégg. guy gi guy gi guy gi maa ngi koy nuyu en passage. waay sama sama xarit la sama nit la. Mhm. guy gi euh, dama ko xam ci lu baax ak lu rafet dox dox ci. Mhm. même bi mu nekkee fii ci moo mhm. problème bu amee sax moom moo doon dox ci lu baax. Hmm. waaw moo kon yaa ngi dëggal nga ne. yaa ngi dëggal nga ne kon guy gi. non non non mais mais man xaw ma ndax loolu médiation boobu am na parce que man gisuma ko mënuma mënuma dëggal lu mënuma confirmer loolu. d'accord mais li ma mën a seede ci guy gi moom mooy que ni. ñoom bu ñu ko seedaloo ni moo doon def médiation di defar loolu mën na nekk mais man gisuma fu guy gi defee. ok léegi li nga xamante ni mën naa ko seedal mooy que ni moom damay fekk lu bëri hmm. fu mu fekk lu yàqu da koy def da koy defar. ok so loolu nag man médiation boobu moom gis ma ko dëgg yàlla. ok léegi ci biir coow lii nan la demee est-ce que mën nga ñu rappeler histoire bi nan la demee yéen doon ngeen ci dox tànk jàmm bi affaire yi amee ne kii jël nañ oram gannaaw ñoo ko invité mu ñëw ci soirée bi xam nga euh, ñoo ko jël hôtel kon war nañ ko taxaw. histoire bi ma amee ak fi xew mi tasee benn. ah bon kon histoire bi moom moom moo tas xew mi nga bëgg a wax. yee non tasul xew mi mënu ko tas. mais dafa tombeek fin xew bi. Mhm. bi fin xew bi jàlle tombeek nit yi di ñu ngi ñibbi soo seen problème la ñoom ñu koy lijjanti avec téléphone loolu moo waral téléphone yooyu ngay wax. Mhm. ci lañ doon wootantee ki yooyu noonu. Mhm. ah kon kon yaa ngi confirmé sama médiation. waaw ñoom ñoo doon wootante waaw mais mais ah, mais ku ñu ki ah, ki ki ñu sàcc. ak ki jàpp ni kii moo ko sàcc. lu muy def day day woo ki. ki ko sàcc yow sàcc googu yow gëm nga ne am na. non man moom wax dëgg fa yàlla duma ma confirmé ne am na du ma confirmé ne amul. mais est-ce que Amina bu ñu ko sàccul woon dina am fitu taxaw di wax ne diw moo sàcc. moo tax ma ne la du ma droit moo tax ma ne la du ma confirmer ne am na du ma confirmer ne parce que ku law xàqun wala kaana mu ran mhm. ku nekk boo deewee tamit yow ak sa bàmmeel la. Mhm. so booy wax da ngay wax lu la wóor. Mhm. li may wax nii li ma wóor lu ma wóor laa bëgg wax moo tax ma ne la wóor ma ni nax am na wala amul. ndax fekkee ma ku jël. Mm-hmm. wala ma gis comme ni yóbbu na chaîne wala nangam sang loolu wax dëgg yàlla mënu ma ko confirmer. Mm-hmm. yee coow daal am na fa am nañu problème ñoom ñaar doon nañu sànnanteeg track wax ji mel ne tull ak màlle. Mm-hmm. ah you know yaa ma gën xam am na yeneen ak yeneen yu ci am. yoo xam ne daal waaw doy na waar. bëggoo dem na 2 maa ngi nuyu euh, <laughs> sama sama xarit. Euh, Bijou Ngoné. moom ndeysaan maag moom dañoo bokki dañoo bokki mbuus moom coow la am faw ñu laal ci mhm. waaw mu ngi mu xam nga dem na ba 2S coow la dugg na fa yaayu Amina dugg na wax na coow mhm. la woon euh, maa ngi leen di ñaan mhm. en tant que frère ak sœur nañu nañu nañ nañu defaraat seen xol yi tappewaat ko Amina moo mën a am or waaye or mënu ko am you know euh, Tange Amina jigéenam la na ko jàppee comme rakkam bu jigéen dafay juum loolu am na ah, so peut-être juum na wala juumut am na wala amut nag ku nekk rek tàppewaat xol yi ñu jéggalante ah. Mhm. comme ñu ngi jëm ci weeru euh, weeru weeru Ramadan na ku nekk jéggalante rek man mhm. maa ngi leen di ñaan loolu bu ñu mënee. Mhm. ñoom ñaar ñu delluwaat juboo ku nekk jéggal sa morom. ñu xam ni or. yëfu seytaane la. Mhm. war jigéen a yem ak xaalis. ah gisoon nañ ci tamit euh, même coow li parce que histoire seen événement boobu dafa bëri woon coow. ba leen coow amaat fii euh, ñu wax ne euh, waaw Sankara Mbaye nangam nangam njoolee nangam nangam tudd def ay vidéo di wax wax yooyu yow fekk na la fi. xam nga boobu yaa nga xam nga xam nga moo ay mbiram moo ànd coow moo tax ay ay événement am li si bëri. dafay am coow coow yi génn coow yi nëbbu moo ko ëpp bu fekkente ni danga ma laaj ci Sankara Mbaye ak euh, njole Ndiolé nit ku baax la mhm. d'abord balaa may wax dara njole nit ku baax a baax a baax a baax mooy njole man njole gisuma ko ci euh, ci loo xamante ni lu ñàkk fayda la mhm. wala ci lu ñàkk xorom mhm. non wax dëgg yàlla mu mënuma ko mënuma mënuma ko seedeel loolu Ndiolé jotaay yu góor yi bëri sa day daw. Mhm. du si du si bëgg di toog. peut-être nag ngéwal ak ngéwal la Sankara Mbaye gis ko. Mhm. topp ko sonal ko di ko vidéo ñuy mhm. kafa ki ree loolu kase la njole artiste la. bu ñëwee Sankara Mbaye nekk sinapeur mun na nekk di ko sinap. loolu kase la mais la ñuy wax foofu moom. dara amu ci. amul non amul. comme mënoo dëggal ne am na wala amul. non loolu dafa amul. comme ni nga tëddee ñaaxandaay sànq mënoo tëddee waat ñaaxandaay fii. <laughs> non loolu dafa maa ngi si maa ngi si maa ngi émission maa ngi jégalu loolu dafa amul naa la waat si kanam. ok léegi ndax bi da nga koy dindi catégoriquement wala da nga koy def fifty fifty. comme ni nga ko defee Elastin. non loolu dafa amul. amul 100 pour cent. non no non non man musuma man musuma gis euh, musuma gis euh, Sankara Mbaye dugg ci ci ci ci néegu Ndiolé. non musu musuma ko gis. ok ñu avancé. waaw ci couloir bi la ñuy yem. Mhm. Kaffré mhm. Ndiolé bu. wax nga ko ne moo gën dafa dafa nekk coow yàggul dara il y quatre mois ñu annoncé ne que ne dafa def benn soirée buy am ci euh, Times Square bu ñu war a tëgg genre défilé de mode la en même temps dañuy war a invité di Diop. Euh, mu ñëw Sidi Diop mu ñu mu ñu gars yi annoncé événement bi boo war a jaay billet amoon na sax ci Wally Seck avant. ba war a jaay billet yi événement boobu amul fekk gars yi dugaluñ seen visa sax Sidi Diop dañ ko rejeté le visa am euh, mujjul euh, ndax coow yooyu ndax li nga wax ne. est-ce que seen liggéey bi ngeen di liggéey yow en tant que koo xam ne jég nga moo gën est que yen am am ngeen expérience ci liggéey bi ba fay yu mel noonu di leen mën a dal couple si mu ñëw di amaat ñu am événement gars yi amaguñ sax rendez-vous pour déposer visa ah euh, yi ngeen valider événement bi jaay ticket yi ñëwaat en même temps tëggaat beneen événement nga xam ne artiste bi amul visa est-ce que loolu tamit euh, kii niwul ñàkk du ñàkk professionnalisme yow en tant que ku jege euh, camp moo géet bi nga xam ne ne yéenay tëgg soirée yi non ni nga ko waxee ci soirée yi moo ko ne xam na ni yàgg naa tëgg soirée muy réussir mhm. kon bu tëggee soirée moom problème rek y'a quelque chose dafa am problème nag yoo xamante ni mën nañ ko wax ci kaw. Mhm. am problème yoo te ni kenn mënu ko wax ci kaw. Mhm. mais nit ñëpp dañuy juum moo am na yéene yéene la am. Mhm. mais yéene boobu est-ce que euh, loolu sunu borom war na ko dogal na ko loolu itam dañ ciy wax. parce que poroblème fu nekk lay am. mais li ma xamante ni mën naa ko ci wax ba wax ko ci mooy. Euh, soirée yi nga tudd noonu ñu dem ba am problème problème ya ca am ay erreur la yoo xamante ni am na ci ci camp wu euh, am na ci camp mu gét Gates euh, te boo xool sax am na ci loo xamante ni kenn mënu ko wax mais problème daal am na am na nekkul lomte ni am na mais defe naa ni ñi ngi ci yoon di tëggaat lu ne mel te te incha allahu rabi dinañ ko réussir. bu soobee yàlla. mais gisoo ne ñàkk professionnalisme la. ñàkk professionnalisme non gisuma gisuma ci ñàkk professionnalisme mais euh, euh, xam naa ni li may li may li may li may conseiller sama xarit moo mooy que ni euh, nañu nañu nañu nañu gën a xoolaat liggéey bi quoi so loolu rek laa koy conseil na xoolaat liggéey bi yow en tant que àndandoo moo géet jàpp ne ay lampam daa fay temps yi déggatuñ dara ci moo géet moo waaw tey la lamp yi gën a leer làmp yi fayul. seex naa génn ci li nga nekk moo ay lampam électricité du ko taal. lu koy taal. <laughs> loolu leneen la. ah lamp yi daa mel ne gëmm na de. non xam xam nga xam nga lamp lamp yi fay. Mhm. moo yi électricité di taal. Mhm. kooku bu électricité bi jeexee. wala boo bu sa facture courant ñëwee. te fayoo ko euh, euh, courant bi mun na fay lamp yi mun na fay. moo gën amul arrière kon. non ma la moo tay la gën a tàng moo bëri ci demoo la nam yàpp gileem. Mm-hmm. ne day ne ne day jënd yàpp gileem yaa gaa yi yaakaar day dem peese ji mu wàccee gilem teg. Mm-hmm. ak kat bëy kat kat xar yu ndaw. Mm-hmm. laal michu yu neex. toog te reer la woon. kooku ay làmpam bu fayoon dina dina jënd loolu yoo xam nga gilem ñaata lay jar fii. lampam fayut déggalu mu la yi mu yor électricité yi nii du ko taal. génne ci li nga nekk. <laughs>